ñu ngi fii euh, ci mairie de ville bu Pikine fi nga xamante ne foofu la agent municipaux yu bëri daal di dajaloo tey jii bésum dialogue bi nga xamante ne moom la Macky Sall woote ca Diamniadio waaye agent municipaux yooye donc dañoo daal di prox ndollu donc ci euh, bés bii de ngir ñëw fii ci maire bi di revendiquer li nga xamante ne loolu la euh, état bi war a def ci ñoom ñoom seen point yu bëri yi nga xamante ne daal dañ ko revendiquer bokk na ci revalorisation seen salaire yi waaye salaire yu bëri yi nga xamante ne état bi war na leen ko jox ñooñu lan la ñuy wax état du Sénégal nañu dem teewlu seen i kaddu yi nga xamante ne yëkkati nañ ko tey ji fii ci mairie de ville bu Pikine tubi de li ko waral daanaka Sénégal yëpp xam nañ ko ndax lu tolloog fukki weer ak juróom-ñeent ñu ngi ci ay revendication yoo xam ne yu aajawu ci yokku salaire dafa am loi boo xam ne dañ ko dañ ko veto woon depuis 2011 muy la loi 08 2011 bu 30 mars boobu xam ne moo ñu def des fonctionnaires des collectivités pour na ñun ñu nekk ay collectivités ñun ñu nekk ay fonctionnaires des collectivités ñu gis ne nag suñu ay moroom ñu ngi ciy bénéficié wu depuis 2022 ñun boobu ba léegi ñu ngi ñu ngi daw ci ginnaaw loolu. syndicat bi def na lu mu mën l'intersyndical xeex nan li ñu man fi mu toll nii liggéeykat yi ñoo jëlal nag le destin en main ndaxte nag noo di xeex di liggéey boo fay boo ree doo faju mënoo di liggéey yow amoo augmentation. wax ji wax ji xeex la fii ñuy déparé man duma fa dem. fi ñu yem laay wax dañuy xeex ba dugg boîte vocale maa ko wax ñun depuis 93 ñu ngi ci mairie bi ñun ñu nekk santé sunu nawle yéen nekkal ci hôpital bi fay nañ leen ba fàtte nañu